li leen wóor ne tafaay bamba dooma xam baay ne say say doom di say taalibe ñoo ñëw tey fii ci kër gi di kër sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma gii ci bis bu sell bu tedd bu màgg bi di tubaa Touba màggalu Daaru Xuddoos nga xam ne sa waajur wa lu ne def nañ ko ba ñu tuddoon ko màggalu Sëriñ Cheikh njàmbaar la fa wone ak ngor la fa wane fit la fa wone ba ñu tuddee ko gaynde Fatma kooku nag la mu defoon moom mooy ndaw ba léegi nii tàmbale ko ci Cheikh Moustapha ba tey mu nekk nag fu ñu toll ni ci seen i loxo yéen yàlla na yor bi yàgg yàlla na ngeen ko ni ngeen ko bëggee yàlla na suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko may leen kàttan may leen may may leen doole may leen lépp lu nga xam ne soxla ko wërsëg lu mu mënti doon ak wér rawatina wér ak wérle ndax nit ku su wéyee ci mën na am problème yàlla ngeen wér yàlla na ngeen wérle liggéey bii ngeen yenu te mu diis lool yàlla leen tiim rek fu ngeen ko bëggee yóbbu nga xam ne mooy ndamal sëñ Cheikh Amadou Mbacke sëñ bi kat sa mag ja nekkoon Taïf daf ñoo mos a wax mu bas ñaan mii fekke na ko mu ne képp ku nekk ci yéen di dox daayira yaa ngi yokk ndamal sëriñ Cheikh li fi nekk nag kenn moo mu ci dara lépp sëñ Cheikh Mbacke moo ko moom lan fa ne joxoñam ba rek ci lañ topp di def joxoñam ba ci la ñu nekk rek di def nii ñi di jaare nii ñi di jaare nii waaye benn tool bi la ay jëwriñ nag ñoo ci wuute ñii di bay côté bi ñii di koy di côté bi ca loolu baax kenn ku ne yaa ngi koy ñu ngi koy gis ci tool tool moom baaxoon na loolu tool bu rëy bu yaatu bu mag xam ne lu ne xeet bu ne ñu ngi ko fay def yaatu na dinañ fa gis loolu ñi nekk ci lii ñi nekk ci léegi nii léegi nag fii nga xam ne kii sa doom jii di sa taalibe Sëriñ Moussa Mbacké Mohamed ñun ñii waa Ndakaaru section Ahibahil Khadim bu dakaar ñoom ñoo ñëwoon tey ci ziar bi ci bis bii doon ko jébbal suñu àllarba doon ko yeesalaat suñu njëbbal di ko joxaat suñu bopp joxin bu bees tàq wan ko ni àdduna ak alaaxira lu mu soxla loolu lañ soxla lu mu bëgg loolu lañ bëgg te xam nañ tamit sa diggante moom ni mu mel gis nañ ko yàgg nga koo gërëm bërki démb rek la ñuy wax waa waa ansaaru diin seen jotaay bi ñu am ak yow la nga doon dénk ci moom mii muy sëñ Moussa Mbacke Mohamed yàlla na nga ñaanal ñu ko lu mu bëgg lu mu bëgg àdduna ak alaaxira yàlla na ko am nu kawe njort yow it ñu ngi la koy ñaanal ay taalibe kat am na sañ-sañu ñaanal sëriñam te yow mii fi mu nekk nii yaay sëriñ Cheikh Gaynde Fatma loo bëgg loolu suñu bam na ko def mbooloo maa ngi nii di mbooloom sëñ Moussa Mbacke Mohamed dama bëgg nga xool leen bëtu yërmande ñaanal leen lu ñu bëgg def ko ci sëñ Moussa Mbacke man ñu def ci lu kawe seen jot am soral xolo di seral xolu sëñ bi saa su ne di defee ndigalam ca kenn ñoo bañ bañ kenn bañ ñoo gis ci lu ñuy tere ñu ngi lay siyaar bu baax ci barke bis bi di la ñaanal nga yàgg fi loolu te wér di sàkku ñaan ci yow ndax kat nag fii kër gi moom kër gu historique la kenn ku ne xam ne fii fan la fii mooy Daaru Xuddoos fii mooy kër Mor Joosi fii mooy Palais fi mooy fi nga xam ne sëñ Cheikh Mbacke sëñ Cheikh Amadou Mbacke na ko man dama wax sama chance àddina man mooy li ma sama bay tudde sëriñ Cheikh ne am naa ko ci kii nag bu dee doomu sëñ kon loolu mën nañ ko fi am ñun kon sëñ bi foofu la gàddu kàddu yi yam ñu bañ a guddal ndax temps bi ci ñu ngi dokki nag ñu jërëjëf mbooloo mi sëriñ bi nee na mi ngi leen di delloog nuyoo di ko jaarale ci sëriñ Njóogu Fall mi nga xam ne mooy seen jëwriñ ak sëriñ Cheikh Diagne nga xam ne moo jiite section ahibaayul xadim bu dakaaru sëriñ bi nee na dégg na kàddu yu ngeen wax xam na li ngeen waxi tamit bu baax nee xam na ne loolu tam li ngeen wax rek moo nekk ci yéen te nee na loolu bu ngeen ko waxutoon it seeni jëf wane na loolu nee na mu di leen xamal nag ne diggam ak sëriñ Moustapha mi nga xam ne doomam la dib taawam nee na diggam ak moom dafa yàgg nee na tàmbaliwut bi fi sëñ Moustapha wuutoo sëñ Mbacke waaye tàmbaliwut it moom bi mu fi wuutoo sëriñ Cheikh du Mbacke nee na loolu yàgg la nee na ba muy am ngërëm mi itam booba sëriñ mustafaa toogewut jataayub sëriñ Mbacke moom mi toogewut jataayub sëriñ Cheikh du Mbacke nee na kooku loolu yàgg la kon ngërëmam moom ngeen gis ko wala ngeen bañ koo gis ngeen dégg mu wax wala ngeen bañ a dégg mu wax na ngeen xam ne sëriñ Moustapha am na ngërëmam bu yàgg mu di leen xamal ne nag kon yéen yàlla booleeg moom mi ngi leen di dénk ngeen jàppale ko bu baax a baax ndax li bëgg a def lu mu rëy rëy lu mu tanawu tanawu lu mu yaakaar yaakaaru te yéen ñi nga xam ne yéen la ko suñu borom booleel jàppalewu leen ko itam loola mën naa am waaye am nga mën naa yeex nee na kon nag laxasaayu gi ngeen laxasaayu ci gannaawam nee na loolu mi ngi leen ci sant bu baax xam na ne itam li sëriñ Moustapha bëgg ay jumtukaay lay laaj ay moyens nee na mi ngi leen di ñaanal yàlla ci kàttanu sëriñ bi ak bis bi ngeen ñëw suñ borom jox leen yi ngànnaay yoo xam ne da ngeen mën a def li nga xam ne moom la sëriñ Moustapha bëgg te loola mooy tax ngeen mën a am ngërëmam te yaakaar na ne it loolu dana leen ca fekk ndax loola tàmbaleewu leen ko ci moom da ngeen koo tàmbalee woon ci ay wajuram te bi mu ñëwee tekkiwu leen seen laxasaay yolamalu leen yolamalu leen ko itam nee na kon nag na ngeen xam ne moom foofu la nekk sëriñ Moustapha noonu it la leen di xoole yéen kon mi ngi leen di ñaanal yàlla di ko ñaanal ñëpp nu ànd am ngërëmul sëriñ bi te loolu yaakaar na ne kenn ku nekk loolu la bëgg nee na na leen bu baax sant na leen bu baax leen wóor ne tafaay bamba dooma xam baay ne moo nàmp ci meenam ba fer ba matwaay ku koy weddi ne seet bis ba bamba wuy jee ñu toj kër ga ca njaareem ne dungi day jee